alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain ayuha al ixwatu al afadil wal mashaayixu al kiram uxayyikum taxiyat al islaam wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu يسعدني أن أشارك في هذه الندوة bi unwaan assalaam fi taalimi Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul an usharika bi haadihi alkalima mawduu haadihi alnadwa assalaam ayuha alixwa lahu ahamiyatun xaasa بالنسبة للشيخ الخديم وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي يعتبر فيها السلام من أهم ما يجب أن يسعى إلى ترسيخه wa yunaadalu min ajli nashri li anna alxayaata la tastaqiru ila bi illa bi wala yastamiru illa aley wassalaamu ayuha saada huwa aslu kalimati lislaam diin illah alladi la yaqbalu diinan siwa wa huwa taxiyatu lislaam alladi ixtaaraha allahu li ahli liman wa ida jaaka alladina yuminuuna bi ayatina fa qul salaam wa bihi yarudduuna ala almuxaatibi aljaahil wa ida xaatabahum aljaahiluuna qaalu salaama wa huwa taxiyatu almuslimina fi aljanna allati hiya daaru salaam taxiyatuhum fiha salaam wa bihi yuxayuuna almawla jalla wa ala yowma alliqaai bih taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam wa bisalaami ayuha alxuduuru alkiraam rafaa mawlaana alcheikhu ahmadu bamba raayat alislaami wa bihi daafaa an fa huwa radiyallahu anhu qaidun ruhani wa daaciyatun rabbani wa muslihun ijtimaaci qad tajassada fi tacalimihi macna salaam fi aclaa mazaahirih wa asfaa suwarih xaytu jacalahu rakiizatahu alasaasiya allati shayyada calayha binaa dacwatihi alislaaxiya almubaaraka wa nasharaha wa daafaa canha bisayfi aljihaadi alsilmi alladi cabara canhu biqawlih inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahidu wa kaana yaqul radiyallahu anhu wa yunaaji rabbah waliyahab salaamatan wa aafiya wajcal xayaatiya xayaatan saafiya wa kaana min adciyatih ijcal salaamatan taduumu ya salaam liya walil ayaali fi daari salaam wa bi mascuudin wajaahi bni salaam hab lii salaamatan wa xifdan ya salaam wa min adiyatihi aidan ma kaana yuraddiduhu xiina anshaa madinata tuuba wa daar assalaam allahuma innaka xutta zimaami ila al ard allati ixtartaha li wa banaytu fiha daarayn li acbudaka fihima bil imaani wal islaami wal ixsaan wa sammaytuhuma daara assalaami wa tuuba tabarrukan bihima fajcalhuma bifadlik wa bijaahi wasilati ilayk sallallahu taala alayhi wa sallama saalimatayni gaanimatayn wa kaana yabtahilu ila llahi daayan iyaahu an yajluba almuslim an yujanniba almuslimina kulla ma yaxulu baynahum wa bayna alayshi bi salaam fa yaquul wajcal quluubana ala altawaadudi bila tanaazucin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaagudin wala tanaafuri xata nasira muslimina xaashicin wa muminina muxlisina saalihin wa ila janibi almunaajaat walibtihaal kaana radiyallahu anhu yad'u atbaahu walmuslimina maan ila salaam wa yaxusuhum ala iltisaami kulli jaalibin lissalaama wa kaana min awaamiri amartu kulla man yaddaci bi annani raisu bi taacati illahi wa taacati rasulihi alayhi salaatu wasalaam wa an yatruka maa yaksiru xawaatira ahli l ard wa gayrahum xawaatira ahli l ardi wa gayrihim fa inna salaamata wal aafiyata xayrun min aksihima wa kaana min aqwali man arada salaamata falyatruki suua lil musiina wal yufaariquhum adiyatun kathira wa nasaihu adida kaana mawlana ala abdul xadim yuraddiduha wa bisalaam shayyada bina al islaam wa rafaa raayat al islaam wa lamma bana madinatahu daara salaam alana min al bidaaya anna daawatahu daawatu salaam wa daawatu xayrin wa daawatu afiya radiyallahu taala anhu waa arda anhu anna mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen ziar ci tuuru kilifa yi ñu àndal bàyyi ko Touba ci jataayu xam-xam bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaane sëriñ bi ak jàmm sëriñ bi nag mooy jàmm jàmm mooy sëriñ bi ma ne suta waxtaane jàmm te waxuñ sëriñ bi ma sëriñ bi te jàmm mooy ki nga xam ne yàllaa ko tànnal yoonu jàmm ngir mu di ci woote li ñuy wax naan moom ku jàmm kut dem jàmm rek la raj ku mës a jëflante jàmm la jëflante yow ku mës a not jàmm la note ci jàmm la yëkkati sa jaasi jàmm la wootee lislaam ba tasaare ko ba ñu doonoon ay noonam yu gën a tar wëlbati ko topp ci ginnaaw ba mu wootee woote bi jaar ci ay barab ba ñëw sanc daaru salaam turu turu dëkk boobu nga xam ne mooy dëkk bi mu njëkk am wane na ci ne moom wootekatu jàmm la booba ñu ngi koy jéñ lu ne sëriñ seeg ceddo yeeg ñi xamul ñëpp jàpp ne daa am lu ko tax a jóg mu ñëw defar këram ne daaru salaam ngir wan nit ñi ne leen jàmm moo ma tax a jóg kon ku jàppoon ne leen lay woote xam leen jàmm lay woote daaru salaam kër yàlla ku jàpp ne leen lay wut yàlla rek ma ñor ci laa bëgg yóbbu ñëpp kër gii këru yàlla ku fi ñëw am nga fi barab woote bi wootub jàmm la ku fi ñëw mën nga fee am jàmm ci loolu la taxawal ba woote woote bu mag bi ba ñëpp si ginnaaw bu mu jànkoonteeg lu bare bari ci ay coono yoo xam ne jataay ma ma yewu ko waaye xam ngeen ne lim nekk ci loxo yi tubaab yi 1895 ba 1927 génnu seeni loxo waaye ànd ak lépp teewut moo doon wax naan afawutu anil aada ay turan li wa ci mën nafaahum li xëyri sarmadan lestu adfahu loolu ko may ndam ba tey dëkku Tuubaa yi nga xam ne mooy dëkkam di capitalu muridisme tey ndam la ci islam bépp at mu jot ay millions ngi nit dañ fay daje ci turu lislaam lu ñu wut lu ñu wuute wuute ay pas-pas lu ñu wuute wuute ay naanu teewut ña ngay ànd di bokk ron ron ci ron mbaarum jàmm ak jàmmoo nga fekk ab suufi yi ci pegg salaf fekk ab sunni ci pegg ab chian yi fekk politicien ku ne ci nguur ak ku ne ci opposant ñoo ñëpp ñu bokk di wataay di waxtaan nekk benn loolu ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa ngir jàmm la kon ku koy roy na nga ko roy jàmm sëriñ bi jàmm la bëgg ñëpp tënku ci ndax ku mën a def lu baax da nga am jàmm ku mën a jàmm yàlla da am jàmm ku am wuti xam-xam am ko da nga am jàmm bu jàmm amul dara du kon yàlla na yàlla boole defal jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. te Serigne na képp ku ma fekki sarsaara ngir siyaare si ma tàggoo nga ak bàkkaaru àdduna ak àllaaxira kon ñun murit mooy li nu war mooy di xeñtu ndigali sëriñ bi di daw ay tereem bëggante soppante wóoloonte di jiyaat liggéey ci aw yiw yéene ko ci ñëpp sëriñ ma sàmba mi ñu tudde bis bi nag sëriñ ma sàmba mi ñu tudde bis bi taalibe sëriñ Tuubaa la masa doon aju gu mat sëkk ci sëriñ bi ndax ñoom ñaar ñoo bokk Maam Mor Anta Sali sëriñ Masamba géeju xam-xam la woon daa moo tax li sëriñ Tuubaa daan bind lépp sëriñ ma sàmba moo ko daan maas gis dawul teg lenn ci kanamam lu ko yéem lu dul sëriñ Tuubaa te sëriñ Masamba dëkk googu mu dëkkoon ci mbal bëggoon a jege jumaa ji ba mën a liggéey bi moo taxoon mu dëkk fa ku soppoon Serigne Touba la woon daan ko roy ci ni mu daan doxe ak na mu daan kaalawoo comme ni ko saxaaba yi doon defe ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bala maa jeexal nag dinaa nuyu Serigne Mountakha Bassirou mi nga xam ne mooy njiital yoonu Mouride di nuyu Serigne Sidi Mbacke mi doomi Serigne Moutalla di doomi Serigne Touba ci yaatug dënnam ak rafetub taxawaayam di nuyu fédération Cheikh Al Khadim bi ci njiital Serigne Madiop di nuyu daayira Maam Jaara bi ci njiital soxna joor Fall ak ñi ñu ko andal ñëpp di nuyu Serigne Sabara Fall jàmbaari Cheikh Massamba ci taxawaayam rafet ci sarsaara ji di nuyu président de la république ak membre du gouvernement bépp man la soxna Maam Issa Mbacké présidente fédération Ahlu Café waskuru jami asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi fi daje mbokku taalibe yi mbokku dëkkandoo yi mbokk yi bàyyeekoo Sénégal ak mbokk yi nekk Sénégal te nekk fii sunu mbokk yi nga xam ne ñooy mbokk mauritanien yi ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di sant yàlla bu baax ci cant gu ànd ak xol bu rembat ci mbégte ci taw féex bu rëy bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa defal nanu ko muy dajee bu tedd bii nga xam ne bu nu fi jógee ndam li kenn rekk moo ko jagoo muy lislaam bu ñu nee lislaam nag mooy sëriñ Tuubaa ndax seyxul xadiim biiram bitéem kowam suufam léppam mooy lislaam di nuyu suñu kilifa yi fi dajee ci turu Seex Siidi Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada nee na mi ngi nuyu kilifa yépp di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo Cheikh Mouhamad al Bachir mi nga xam ne mooy kàddu yoonu murit Cheikh Mouhamad al Bachir nga xam ne mooy gëti Cheikh Mahamadou Mountakha Cheikh Mahamadou al Bachir mi nga xam ne mooy tànki Cheikh Mahamadou Mountakha Cheikh Mahamadou al Bachir mi nga xam ne mooy kàddu Cheikh Mahamadou Mountakha Cheikh Mahamadou al Bachir Serigne Sidi Mbacké mi ngi jël nuyoo bu mag bu tedd bu am dayo di ko teg sa loxo yu tedd yii di ñaan nga àggalee ko ko ci sëriñam ba magam ja cheikh ahmadou bamba xaadim rasoul cheikh mahamadou muntaxa sëriñ basiiru yow sa tur rek dafa dëppook sa jëmm sa lépp mbég la sa lépp teraanga la sagal nga yoonu murit sagal nga lislaam sagal nga sa maam taalibey sëñ Tuubaa yépp la amel njukkal ñépp a ngi sant di ñaan sa fan wii yàlla gën kaa guddal lool ca nga ànd koog Cheikh Mahamadou Muntaxa ak mboolem rakk Cheikh Mahamadou Muntaxa Mbakke yépp ak mboolem jabatu Cheikh sëñ tubaay ak taalibe yi mu ngi nuyu délégation bu mag bi nga àndal jóge Touba lim nañ leen léegi waaye sëriñ bi nee na jëlaal na lim boobu tàbbalaat kàddoom ci biir lim boobu gis nañ bi ngay ñëw Mbàkke ñi nga àndal kenn ku ne sa délégation bi tànneef la Touba kenn ku ne sa délégation bi mën naa nekk sëriñ bi fu ne ci juddu ci xam-xam ci yar ak ci teggin sëñ Mbàkke Abdourahman mi wax léegi nit ko koo gis ku ne jëm mi la waaye kàddoom mooy poids kàddu gi rafet na lool xam-xam la feese kon sëriñ Sidi nee na mi ngi lay nuyu di nuyu délégation bu tedd bu mag bi nga àndal bàyyi koo Touba mi ngi lay xamal ne fee nga nekkoon ñu naan ab dal la ci yow foofa wàccuwaay la waaye sab dal mooy xolam nee na ci biir xolam la la ubbil ci nga dal mu ngi lay sant bu baax Mbàkke di la gërëm di la ñaanal yàlla na nga yàgg ànd ak Cheikh Mouhamadou Mountakha lépp lu mu digle rek nga jiitu ca ñun ñëpp ñu jiitu ci barke Sëñ Touba sëriñ bi nee mu ngi gërëm mboolem délégation yi fi ñëw ñi ñu tudde bis bi waa kër maam Masamba Mbàkke Anta Ceebo ndigal ma nga bàyyeekoo ci sëñ Moustapha Masamba jaar ci njabootu sëñ Masamba gépp ñu waxtaane ko bis bi ñu xam màggaayam xam dayoom ñu tànn délégation bu am solo jiital ca sëriñ Modou Kara Mbacké moom sëñ Modou Faty Khary mu ñëw fekk si ànd ak Baye Fallou Sarasara muy soxna maam Isa Mbacké mii nga xam ne bu fekkoon na sax délégation bi kenn ñëwul bàyyeekoo ci kër ma Masamba moom kepp bu fi dikkee dara doy kon sëñ Modou Kara sëñ Sidi nee na mi ngi jël ay kàddu ak ay nuyoo ak cant gu mag ngërmande gu mag di ko teg ci sa loxo xamal ko ne Mauritanie gépp ak taalibe sëñ Touba yépp bëgg nañu loolu mu ngi koy yóbbanti xalifa bu tedd ba Cheikh ma sàmba délégation yu tedd yi fi nekk ambassadeurs yi ñu fi lim ñépp sëriñ bi nee na mi ngi say baamuwaat ndax seen taxawaay taxawaayu réew la seen taxawaay taxawaayu réew la waaye délégation bi nag Cheikh Mahmadan moom sëriñ Abdoulaat moo ko jiite muy délégation bi nga xam ne bàyyeekoo na Sénégal bu ñu nee Cheikh Abdou Lahad nag moom xol yépp daañu dellu sëñ Touba ndax mooy sëñ Touba sunu mbokk yi nga xam ne ñooy ambassadeurs yi sëriñ bi nee na gërëm na leen seen teewaay rafetlu na ko bis bi ñoo ko bokk ak yéen ndax bisu diine la ca diine ñépp a ci am wàll kon seen teewaay bii yëg na ko sant na ci sëriñ Bachir Abdou Khadir bëgg na ci lool ndax bu teewee ci saal bi ñu lim luy tolloog juróomi réew ñi seeni ambassadeur teew ñi seen ndaw teew loolu dana xam ne jox nga bis bi dayoo ca it jëmmal ngeen ko ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm. di leen sant di leen ñaanal su su suñu borom nangu jëf ji yal na yal na leen suñu borom dimbale yal na leen suñu jëf ji rafet na lool di leen xamal rekk nag ne. déwén yàlla nañu sunu borom bàyyi ak wér gi ak ak ak ak wér ñu ngi koy fas yéene tuddee Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy xalifa bi suñ tubaab bi jiitu dañ xam ne déwén moomam bis bi ah, ñëpp nañ maase ci waajal ko te lu ñu defoon rek ñu ful ko te xam ne suñu digganteeg suñ tubaab contrat bi ngiruk dund la ah, sant naa leen baax naa leen baax ci turu sama kilifa yi nga xam ne gis ngeen ni nii nii ñu ñëwee wuyu sunu ci turu sunu kilifa gu mag gi Cheikh Mamadou Muntaxa gis ngeen teewaayu Cheikh Mamadou Bachir Cheikh Dan monsieur Blahat ak ak ak Touba kenn desut gis sëñ Galas mii nekk ci sama wet ñu xam ne noonu yi rek la yoon wi moom lenn la benn say la rek sëñ Muntaxa yor ko nekk ci kanam kuñ ci liggéeyloo rek lañ la liggéeyloo nga teg ci sa bakkan ngir sëñ Touba waaw te lépp dama waxoon rek inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahidu ñun kat dañuy jihaad waaye ñun suñu jihaad mi ngi tàmbalee ci suñu bakkan yi bopp yii dañuy fexe not jaamoo ko yàlla liggéeyale ko Sëñ Tuubaa waaw kon nag ñu ngi leen di sant te ñaan suñu borom nangu nangu jëf ji te dolli kàttan yi dolli xéewal yi ba ba ba saa su nekk muy gën a yomb ñu koy gën a mën di ci di ci gën a am ngërëmal Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf jazakumullahu xeyran kullu amin wa antum bi xeyr ñi ngi jéggulu nag mboolem mbooloo yi nga xam ne ñi ngi fi te seenu jël kàddu xaju fi te te yelloon nañ ko ndax ndax seen seen seen la ñu mel ne euh, kuréelu Sëñ Bachir Amar ñu mel ne waaw ndeysaan ak euh, soxna Bintu ñi nga xam ne ñoom bis bi seen bisa waaw dañuy dañuy dog ngant rek di jéggulu te xam ne euh, contexte bee ko waral waaye kenn ëppalewu leen fi cër waaw ñu ñu ngi sant bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoom lañ ko tuddee woon waa kër Cheikh Massamba yi jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran mbokki jullit yi mbokki réew mi mbokki lislaam yi mbokki taalib yi ci ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne liggéey Serigne Touba ñu ñaan mu yàgg fi loolu te ak wér ci ndigalam ak kàddoom lañ ñëw ngir jotul leen ay kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci moom muy cant ak i ngërëm ak kàddu ñaan ci bisu tëdd bi di jiital ci nuyoo bi nag ki nga xam ne mooy kilifa jotaay bi di Serigne Mamadou Mbacke Cheikh Ahad bi nga xam ne ñoo ànd muy suñu kilifa di suñu mag waaye di kilifa jataay ak mboolem kilifa yu tëdd yi nga xam ne ñëpp ànd mooy ñoom taa yi di nuyu bu baax mboolem waa réew di teg yooyu ci loxo suñu rakk ñu yi di sëriñ si di Mbàkke Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne yàlla def na tey mu nekk fi teewal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha teewal fi yoonu murid yépp ñu du ko sant di ko gërëm di ko ñaanal ci barkeb Sëriñ Touba ndax lii rek mooy di ko war Sëriñ Touba képp ku mu boole ci boppam li la war moo jël sa dund gépp jaayante ko liggéeyale ko ko ngir jëm ko delloo ji ko donte mënu ko kon ñu ngi koy ñaanal ak mboolem taalibe yi yéen nga xam ne yéen topp ci ginnaaw moom ci ndigalu ki fi nekk Sëriñ Tuubaa yàlla na suñu borom dimbale te sàmm leen leen kàttan leen ba ngeen mottali mboolem yi yi nga xam ne am ngeen ko ci liggéey yàlla ko yàlla ak ñi ngi nuyu nag ki nga ne moo fi teewal njiitu réewum Mauritanie di ministère bi nga xam ne mooy wàllu lislaam di ko yóbbante nuyoo ci ki nga xam ne moo njiitu réew di Seydi Mouhamed Ghazouani ci teew yi mu ko fi teewal ak relation bi nga xam ne diggante Sénégal ak am na ko rawat na diggante Touba ak Mauritanie mu xam ko fekkoon ko fi waaye mu jëmbat ko gën koo dëgëral te li ciy firnde mooy yàlla def na ba mu fi toogee ba léegi nii lépp lu loo xam ci màggalu Tuubaa gi dana sàkk délégation bu mag yónni ko ci sëriñ bi lépp lu xew ci sëriñ bi yàlla lay jàmm waaye bu dee leneen safaan bi itam dana yónni délégation ànd ko sëriñ bi kon sëriñ bi daal ñu ko sant di ko gërëm du ko ñaanal moom itam suñu borom dëgëral ko mott di yéene ci te li ciy firnde it mooy fan yi weesu rek Cheikh Mamadou Mountakha yónni na ci président Mauritanie bi di Mouhamadou Khassouni ab délégation boo xam ne Serigne Ahmadou Badawi moo ko jiite woon ànd ak Serigne Mourtada ak Serigne Sam Bousso ñu ñëw ci moom am. lu leen sëriñ bi yónnoon ci lu jëm ci wàllu université ba ñu accès mu dalal leen gàttal leen gis leen tam bañ ko waxee la sëriñ bëgg lépp da caa taxaw ba wax leen wax leen sëriñ bi ne ñu ngi ko bëggee di ràppale kon ñu koy ñaanal di ko sant di ko yóbbante ak cant ministère bi nga xam mooy tam di nuyu ki nga xam ne mooy ambassadeur Sénégal teewal fi président Macky Sall mooy itam ñu di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam bu rafet bi nga xam ne ñi jiite organisation bi leeral nañu ko mu taxaw taxawaayam rafet ndax lii nga xam ne mooy lajal Sarsara bi lépp loo xam ne waroon na ko ci def na ko ci taxawaay ak jàpp ak ànd ko ngeen ci biir ci biti ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko yóbbu itam ci mboolem ñi nga xam ne ñooy. yi nga xam ne mooy mbokki sufara yi nga xam ne ñëw nañ fi ci juróom-benn réew ñaar réew ñëw fi ngir ànd ak ñun ci bis bi taaral ko jëmbal ko ñu ngi leen di sant di gërëm di fedd diggante Sénégal ak seen réew yooyu waaye di fedd diggante yoon Mouride ak seen réew yooyu di ko yóbbantam yoo ak cant ak ci président Macky Sall mi nga xam ne moom la fi teewal yor fi kàddu te lépp muy def na mu di ko def ci diggante moom itam ñu di ko sant ci loolu Cheikh Abdou Mountakha ndax ñëpp xam nañ seen diggante xam nañ cofeel bi sëriñ bi ak jàpp bi am coow moom itam cër ba war jox lépp ñu ko def moom itam suñu borom dëggal ko ba mu àggale mission di gërëm rek. mboolem ñi nga xam ñoo bàyyi ko ci réew mi yëpp ndax mboolem fu tarixa nekk wala munasama islamiya yëpp ñëw nañ fi munasama yëpp ku ci nekk ku mënta ñëw yebal nga mu teewal comme demoon nañ ko rek jëru des soit ministère bi nga xam ne moo ko def njiitu yow yooyu dafa am yeneen engagement yoo xam ne moo tax mu xat ba jataay bi mënta ko te li ci ëpp ñi ma jiitoon wax nañ ko muy suñ bàkk Abdourahmane wax na ko sëriñ ñi topp ginnaaw te a waxaat danañ ko jottali muy li ci soññ kon bis bii moom Cheikh Modou Mountakha moo joxe digal wax na ni ñëw teewal ko ànd ko yéen ngir kon ci digal lañ ko def kon nag lépp loo xam ne ab taalibe bi koy def te def ko ci digalu sëriñ bi rek na xelam dal ndax alxayru fii maxtaaruhu muxtaaru laa fi lesi nufuusuhum def di màggalu Sarsara xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa li ko andoon Mauritanie ñëpp xam nañ ko dafa am sababu saahir waaye am sababu su baatin kon seen bis bi bokk na ci bis yi gën a màgg ci kon nag na ngeen ko gën a jàpp gën koo fonk gën koo jox ngir xam ne lépp loo xam ne saf ngeen ko rek te def ko ci pëstéef ak ngëm-ngëm ak dëggu yàlla daan leen di fekk kon na ngeen ci gën a góorgóorlu ci fexe ba fu mu toll ren bu déwénee mu weesoo ndax Serigne Touba lépp duñ koy wooteel bu nangoo rek ci loolu ko xel kon ñi ngi sant bi di leen soññ di gërëm ñëpp itam ñi nga xam ne ñoo ànd ñoom te naka jëkk bañ tàmbalee yooyu ba léegi kenn mësu ci mag te buñ ci tuddee Serigne Cheikh Mariam Mbacke bi nga xam naka jëkk ñoo ànd di Serigne Cheikh moom lañuy baara Mbacke tudd ci Serigne Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne mooy itam xam nga ne naka jëkk dañ tàmbali liggéey ba dëkk bi ñooy ànd liggéey mu fi jiitu si ñuy fi daal ndax li ñu war sa màggal Tuubaa gi dafa jokkaloo bi moo tax at mu jot mu ko ànd ak kon ba ren ji itam xam na ci moom waaye ba ñu gàtt gàtt mu ñëw ànd ak ñun bis ci ndigalu sëriñ bi di nuyu mboolem ñeneen ñi ñu àndal yépp itam te buñ ci tuddee sëriñ Moustapha Diatara tudd ci sëriñ Soxayu Diatara tudd ci sëriñ Dakar Abdourahmane wala wax dëgg tudd ci Cheikh Bàcc Diop tudd ci Ahmed Saloum Diak tudd ci sëriñ Mbacke Diop tudd ci nga xam ne ñëw na fi ñoom doon ak xam naa ne daa fàtte suñu Cheikh kilifa yu tëdd yépp moo tax lim bi sax kon ngeen tudd ngeen ko rek boo tuddee Serigne Mouhamadou mu nga xam mooy kilifa gi rek ñëpp tàbb nañ ci biir waaye nag bu ngeen gisee ak cant laaj xam nañ ne yitte yu bari na jamono ji ko la waaye ñoom ñëpp ku ci ne bi ñu ko Serigne bi waxee waaye nag ndigal moom fu mu la fekk rek da war a bàyyi sa lépp ne ca ba ndigal la jeex kon fii ndigal la fi bàyyi. kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali rek Serigne Touba nekkoon ñëw fii kon dama koy jeexale foofu ndax dafa wax ne man sanna sayi xibba aami ak sasi misla masiri rasa aami jay sasi sabata kawluhu jahwalan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yakun shay'un aksasin siwa jasa man liyal qaada baaxul ma dal na jasa kon tukki gànnaar bi bokkut ak tukki géej gi tukki géej gi Sëriñ Tuubaa dafa demoon ngir liggéeyal borom gànnaar bi dafay ñëwoon ngir li ko suñu borom war a fay mu jël si ko kon nag loolu bu yàlla defee mu ñëw jël si jaar ci ay barab yu bare bare fayal ay xarbaax yu bare ndax ko ne xam na la taxoon colonialiste yi indi ko fi bokkut ak sawus bari sa nga xam ne moo tax indi ko fi moom fi dikkee nag di jël si am liggéeyam lu bari fi la xel fi nekk ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fekk jox ko ko loolu kon dañu ci lu jaroon yi ñu fi jàngalee léegi muy xam ji wa li man ku nii bii saara

te suñ borom sàmm ñëpp doole kattan doole xéewal te yitte ñu fi waaye àndal yoon suñ borom saafara ko aajo yàlla faj ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak ci barkeb Cheikh Massamba Mbacké bi nga xam ne moom ngeen tuddee woon te loolu lépp di delloo ci Sëriñ ndax moom dara ngeen Sëriñ Tuubaa rakkama di doom bu tàgg kon bu ngeen jëlee bis bi ngir fàttali ko dara ci moom loolu lépp luy gën a taaral bis bi lu koy gën a kon ngir ba di guddal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan mboolem ñi nga xam ni ñoo fi teew ñëpp yàlla faj seen aajo te ku fi ñëwee itam yàlla ngay jëlee ngërëm suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatulah